ma tey ma tey damp ku ngara matt yaa tey ba muy seen ngey bañam dama ngar lek dama <laughs> ngar wat ngara matt yaa tey ba muy seen ngey bañam da ngay ñak fayda ak say yére nga mané jël doomu da merde man la bama ko ku ngara matt yaa tey ba muy seen ngey bañam way mu dal sénégal dal sénégal jaxal na bo rombé buntu bar ñu na da doon naan sangara nga génn hôpital ñu na diw da corona mbaa daa sida nga romb